serigne Cheikh Ndiaye njare nag sët la ci sëriñ Daaru Assane Ndiaye nekkoon góoru yàlla gu yàlla baaxal moom nag sëriñu lasraar bu yàlla may la nee na ma dina yëngu ci wàllu seet ak seet bu mu mën di doon foo mënti nekk ci àdduna boo ko woowee dina la seetal wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis kepp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee noppi rek di nga am lu kawe sa njortu waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombo njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi néew kattan fan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yalla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde diabète ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne lasraar bu yàlla baaxal. ñu door xibaar yi dooree ko ci CAN U23 bi CAN U23 boobee nag suba la ñu koy door ci réewu Maroc la ñu koy amalee Maroc mi daloo yëf yi nag moo koy ubbi Guinée la ñuy jàkkaarlool match boobee 20 lay door ci heure Sénégal waaye kaan boobee nag ñaari groupe képp la maanaam ñaari poule kepp la poule de quatre la nag maanaam poule bu nekk ñeenti équipe ñoo fa nekk nekk waaye kan boobee nag li tax mu am solo moo di ñaar ñi ko final ak ki jël troisième dañuy dem ci jeux olympique bi nga xam ne ñoo ngi ko war a football ci atum deux mille vingt quatre ci réewu France. kon nañu ñaan kaan boobee door ci jàmm jeex ci jàmm ñetti réew yi dem ci jeux olympiques yi tamit ñu dem fa téewal fa déndu Afrique def fa ay jaloore ci fàttali Sénégal nag qualifié ci segg gu mujj gi la ñu toogee Mali moo ñu loo muy équipe nationale u bu Sénégal. ñu jugee ci kan u bi jël doomu Sénégal bii di Nicolas Jackson moom nag bu dara soppeekuwul ci diggante bi saison bii di ñëw ca Premier League ba lay football ndax club ba mu nekk di Villarreal lépp ak waa Chelsea te gone gi ci boppam moom juba woon na bu yàgg ak waa Chelsea waaye clause bi nga xam ne moo ko bàyyi woon foofee ca Villarreal mi ngi toll ci trente cinq million d'euros waaye li waa Chelsea di fay nag dina ëpp trente cinq millions d'euros li ko waral moo di Chelsea da koy fay ci ay pàcc-pàcc loolu moo tax Chelsea di fay lu ëpp trente cinq millions d'euros fan yii di ñëw wala waxtu yii di ñëw dina dinañu amal visite médicale yi su lépp yembe mu xaatim contrat bu gudd foofee ca Chelsea Nicolas Jackson nekk gone gu footballub Sénégal am ci moom yaakaar kon nañu ko ñaanal loolee yemb mu xaatim contrat bi doxal foofee ca Chelsea xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle ñu joge ci Nicolas Jackson jël beneen doomu Sénégal di Mamadou Kaali Sène moom nag ma nga doon football ca FC Bâle waaye doomu Sénégal bi jugee na ca club boobee waaye génnul Suisse génnul Ligue 1 bu Suisse li ko waral moo di club ba mu contrat ca Ligue 1 ba nekk tudd Lausanne sport foofee la doomu Sénégal bi xaatim contrat naam ñoo nga woon ci Ligue 2 waaye ren jii dañoo yéeg ca Ligue 1 ba bu fa demee nag dina fa fekk ñaari doomu Sénégal muy Aliou Badara Balde ak Karim Sow kon nañu ko ñaanal mu doxal foofee ca Lausanne sport muy Mamadou Kaali Sène ñu jugee ci Mamadou Kaali Sène ak clubam bu bees jël doomu Cameroun bii di André Onana bu ñu sukkandikoo ci Di Marzio agent wam démb ma nga woon ca Manchester United ngir ñu waxtaanee ëllëgug doomu Cameroun bi ñoom waa Manchester United nag ki leen doon góolul de David De ya ba léegi ñu ak moom li ñu bëgg nag moo di góol bu mën la muy def jamono ji nag ñoo ngi baral jéego yi ngir xaatimal ko contrat waaye club ba mu nekk di Inter nee nañu képp ku bëgg doomu Cameroun bi boo indee cinquante millions d'euros noppi nañu ngir jaay la ko jamono ji nag waa Manchester United ñoo ngi baral jéego yi bu ñu sukkandikoo ci Di Marzio ñu jugee ci waa Manchester United ak seeni bëgg-bëgg moyenne de minute ñoom nag officialisé nañu ñëwuk Rafael Guerreiro nekk doomu Portugal bu mën la muy def gone gi ab latéral gauche la ma nga woon ca Borussia mun contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee dafa jeex takk jamono ji na xaatim na contrat ca Bayern de Munich kon Bayern na jaar na fa mu doon jaar di ndax sóoru Dortmund yi di leen indi ci seenub club moom Rafael Guerreiro nag la muy def mën na ko lool ñu jugee ci Rafael Guerreiro ak waa Bayern de Munich dem ca waa mën sa Manchester City ñoom nag ñoo ngi waaj a am gan muy doomu Croatie bi di Matteo Kovacic jamono ji lépp yemb def ci moom nag ba am ko mi ngi toll ci trente million d'euros ak cinq millions yoo xam ne bonus la olof di ko wax buuñaa jamono ji ñoo ngi amal visite médicale yi bu lépp yembe dina xaatim contrat ci Manchester City muy Matteo Kovacic nekk milieu de terrain bu mën la muy def xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xam xamle ñu jugee ci Matteo Kovacic ak waa Manchester City jël doomu France bi di Marcus Thuram moom nag démb gantal na waa Paris ne leen seenub club de mënuma faa ñëw xaatim fa contrat tey ji tamit gàntalaat na beneen club muy RB Leipzig nekk ca Allemagne ñoom li ñu bëggoon moo di doomu France bi dem foofee xaatim contrat waaye li mu leen xamal moo di noppiwu ngir ñëw foofee kon nag mi ngi ci yoon ngir dem ca AC millan ndax gone gi Milan da ko bëgg te moom tamit daqul dem foofee kon mën naa am mu dem foofee doxal bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport ñu jugee ci Marcus Thuram dem ca waa Atlético de Madrid ñoom nag dañoo bëgg latéralub Celta de gauche bu mën la muy def tudd Xavi Galaan bu ñu sukkandikoo ci markaay yéenekaay waxtaan bi sori na lool te lu mën a nekk la Atlético nag li ñu bëgg moo di dugal ci jour bii di Manu Sanchez ba noppi teg ceeb xaalis ngir mën koo xaatimal contrat te nag daanaka jubo am na Xavi Galaan mii nag latral gauche bu mën la muy def la ma ngay def ay mbir yu doy waar ca Celta de Vigo bu ñu sukkandikoo ci markaay yéenekaay nag waxtaan bi sori na lool ngir mu xaatim contrat ca Atlético de Madrid ñu jugee ci waa Atlético de Madrid dem ci seen wujj yi di waa Real de ñoom nag ginnaaw bi ñu indee ay joueurs yu bees tàq ci seenub club jamono jii nag joueurs ya fa nekkoon la ñuy yokk seeni contrat ginnaaw bi ñu yokkee contrat wu Toni Kroos démb ñu yokk contrat wu Nacho tey jii yokku na nañu contra wu Dani Ceballos doomu Espagne bi yokku na contrat am ba atum deux mille vingt sept contrat am nag daanaka jeexoon na waaye juboo nañu ci lépp yokku na yeneen ñeenti at ngir toog foofee ci Real de Madrid doxal muy Dani Ceballos ñu jugee ci waa Real de Madrid jël doomu itali bi di Sandro Tonali moom nag lépp yemb na ngir mu jugee ca AC Milan wutali Newcastle li waa Newcastle def ci doomu Italie bi nag mi ngi toll ci soixante soixante-dix millions d'euros plus bonus visite médicale yi jamono ji amal nañu ko ba noppi li ci des moo di contrat bi te photo bii ngeen di gis nag